jërë ngeen jëf mbokki Dakar Actu euh, ñu ngi dellu si fii ak euh, monsieur le maire de Thiès euh, taalibe Serigne Touba dëgtaloon loolu ne leen départu Talla Sylla Euh, yéen ñëpp sivron woon ngeen ko ci Dakar Actu euh, ñëw nañ fii si euh, Touba fekk si ko fii ci li nga xamante ne moom mooy dox bi mu doon dox arrivé bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. ngi di fay di sant yàlla bu baax di wax alhamdulilah. monsieur le maire naka dox bi. rek ndax mu dafa jar sant rawatina. Euh, nga am yéene boo xam ne mu ngi jëm ci euh, loo xam ne sëñ Touba dafay wax ñu santale ko ci yàlla kon dafa mel ne cant yu daje la kon ndox bi yëpp cant la waaw moo tax fu nu jaar suñuy kàddu alhamdulilah da cee bari waaw di suñuy xel di dem ci moom ngir danoo féete woon fu nu mënta féete suñ bopp defal ñu lu ñu mënta defal suñ bopp ba tax na Euh, dañuy làmbatu rek di jéem di seet euh, nan daal la ñu war a mën a làqe ngërëmam waaw ndax la mu daj da ko dajal ñëpp ba tax woykat bi wax ne may ñëw wax ak ñey wutal sëriñ bi mu kem te ñàkk koo waral ba mu yenn woon yenn bay dem dem na Gabon ci ngor ba dellusi ak i ndam dellu gànnaar ba dellusiwaat indi ngërëm ñu gis ne euh, sa naataangoo yu bëri bu ñuy ñëw ci yu mel nii ay 4 x yu rutulante la ñuy jël euh, mais yow da ngay dox lan moom motiver dox bi tàll si Sylla waaw xam nga màggali yore 4x4 kenn terewu ko lu war a mën a nekk la ndax ci xeet yi nga xamante ni moom la nit ñi mën a ñëw sante euh, yàlla sant la sëñ tubaa suñu borom yooyu ci la bokk waaye ñun dañoo jàpp ne sëriñ bi bis bi muy màggalu du bis bi mu jóge ci nattu bi waaye bis ba mu cay dem kon euh, màggal ko ci coono it euh, mën naa ne ndax suñu borom dafa làq njëriñ te mi ngi ko làq ci ginnaaw coono nga dolli ci ne euh, ba sëriñ bi bind asiru ma ngay wax ne ñooñe ñooña ñooña yaakaaroon nañ ni ñu ngi koy jël di yóbbu ci kaso fekk mi nga ànd ak moom gaa ñu baax ñi dox jëm ca yàlla kon dafay jaadu tey noonu mu defoon di dox jëm ca yàlla askan wi dox jëm ca Bàmba waaw lu mel noonu depuis ba ñu amee yëg-yëg bi ñu nekk di ko def ah daan bawoo Cees nag di ñëw Tuubaa euh, suñ boroom dogal bi nga xamante ni suñu sang bu tedd bi bu di seen Cheikh Sidi Maxtaar Mbàkke euh, làqu yàlla na suñu borom doole ay leeram ñu amoon yég yëgu dox bu bokkul ak doxu safar ñu dox ñëw Touba d'ailleurs bokk na sax ci li tax nit ñi di jàppe bi juróom-ñeenteelu dox juróom-ñeenteelu dox la ñëw Touba waaye juróom-ñetteelu dox la ci safar ndax benn bi ñaan googaa ko waraloon ba ñu dikkee fekk fi euh, sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke di sunu euh, sëriñ di sëriñ Touba euh, nuy ñaan mu yàgg fi lool te wér ba mën a àggalee yéene bi mu am ci liggéeyu maamam bi bi nu ñëwee mu ñu seen dox bi mat na ko teg ci ne mat na ko lool ndax sëriñ Touba jar na te di ngeen gis njëriñ li kon xam nga su ko waxee mooy ñun dañ koy jàppee ndigal ci wéyal dox bi yemuñu nag ci wéyal dox bi rek dañoo yokk dox bi ndax Thiès lañ daan ren ñu tàmbalee ko Dakar ca jal jo muy fa nga lay di fàttaliku bis yëfa sëñ bi defoon mhm. euh, mu mel nak nag xëy tamit du hasard camp boobu ñu mujj ko man mi di setup Jal Diop euh, ma ma ma tambale fab dox ngir euh, woné ci ru seigne touba euh bañ ko défé nak bañ koy tàmbali dañ ne dañuy jël fukk ak juróom-ñett yu sawar ngir fukk ak juróom-ñett safar non lañ ko défé ñeneen ñi xaar ñu ties biñu démé ties ñu nek ñaar fukk ak juróom-ñett soo ci doolee nag ñi nga xam ne ñoo doon organiser euh, oto yi nga xam ne ñoo doon encadrer yore logistique beeg yooyu euh, ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo wàllu xéwal yi soo ci doolee ñu nekk en tout 33 waaw nii daal la la la yoon bi tëddee euh, ñu ciy sant yàlla bu baax nag dañ ko def ay étape étape ba ca jëkk mooy ginnaaw ba ñuy bawoo foofu ca camp fekk sëñ Saliou Mbacké sëñ Saliou bu mi ànd ak euh, ay seti sëñ Touba ñëw ñu demandoo ca barab ba euh, ñu def fa ñaan ñoom ñoo nu ñaanal ànd kook ñun nag étape bu njëkk bi nekk jumaay Masaalikal Jinaan euh, mu doonoon étape bu am solo bu yaatu lool ñu jóge noonu lañ ko toppee samdi la woon ba yegg njaareem demb ci suba fa lañ toog ba booru vingt ñu jóge fa dem kër gu mag Euh, bu ñu jógee kër gu mag ñu dem ba Pataar jógee Pataar jaar jaar Ndulo bi ñu jógee Ndulo dem xur mbake ndax xur mbake daam am lu muy tekki ñu jógee Xuru Mbàkke dem Daaru Xufóor dem Dala dem Ngaabu dem Afe ak si Mbàkke waaw fas yéene nag suba incha allah ci huit heures ñu mottali juróom-ñaari kilomètres yi ci des ànd ko nag ak ñeneen ñoo xam ne baaxoon nañu suñuy jógee Euh, Mbàkke ñoom dañuy àndaaleeg ñun bu ñu demee laxasaay gi ngeen gis li li lii ñu takk yëpp addiye yu ñuy joxe ci yoon wi euh, addiye moomuñu ko dañoo xam ne yéenee ñooñu mooy mu àgg ca sëñ bi mhm. waaw maanaam laxasaay gi daal dañ jàpp ne laxasaayu pas-pas la ay pas-pas yu bëree ci ne ndax état bu ñu toll lan nu fa jox dama ko defal benn pas-pas rek. Mhm. ak la muy tekki nag. <laughs> waaw ndax ñooñu lañ ci lañ ci yittewoo waaw ñoom ñoo ñoom ñoo ko xam. te xam nañ ni yoon wi àttan na lañ ci yéene. Mhm. bëri na bërëb yi ñu tàllal loxo. Mhm. waaye dañuy xam ne du ñun lañuy tàllal loxo sëriñ bi lañuy tàllal loxo. da dox ba léegi yëg-yëg bi lan la. Euh, di sant waaw di sant nag maanaam lu ñu gën a lu ñu gën a dox rek gën a sant ndax bu fekkee ne ba ñuy dox. jot nañ fi am ñaanu sëriñ Saliou Mbacké mm-hmm. am fi ñaanu sëñ Alaaji Baara mm-hmm. am fi ñaanu sëñ Cheikh Sidi Makhtar mm-hmm. ci benn jataay mu ñaanal ñu ci ñetti yoon ñu ñëw tamit ci sëñ Muntaxa ma wax leen fii lim ñu wax daaw kon déjà ñun yëg-yëg biñ ci am lu coono bi bari bari bari ci yoon bi bu ñu dikkee Touba rek fàtte ko euh, leneen li ci des mooy li sëñ Touba wax ne soo ma defalee li nga man ma fay la loo mënul soo ma defalee loo mënul ma fay la lu la jomb te dañoo bëgg lu ñu jomb waaw dañoo bëgg lu ñu jomb moo tax lu ñu nekk ci yoon bi yëpp dañuy wax ne jaral nanu jaral nanu Bàmba jar na dox ba dee waaw dégg nañ sànq ci benn ku la doon euh, kañ wala boog ma ne tagg mu wax ne euh, yow war nga mun a doon président de la république euh, yow bu nga doon président de la république waa xam nga damay bañ àddu ci loolu ci jataay yi ñu toll ndax bu ma ci àddoo rek damay àddoo ci beneen casquette euh, waaye li nga xam ne daal moom laa bëgg ngeen bàyyi ko xel mooy yàgg nañu toog ci koo xam ne moo fi toogal sëriñ tubaa mu ñaanal ñu ñaan goo xam ne maanaam dara ci loolu duñ ko duñ ko duñ ko tëjal suñu bopp bi ci jëkk sëñ Mourtala la bi may jàngi France mu ñaanal ñu bokk ci ñiy jiite Sénégal yoroon ko Serigne Touba ci weeru septembre 90 ci booru port bi ne suba laay jàngi France defe naa ni ci janvier 2000 ci lu am ay témoins am na lu xewoon ba Serigne Saliou Mbacké yàlla suñu borom yokk ay leeram nenu sëñ Touba dina la may ndam te dee fi ñëw ma di la gis yaakaar naa ni ku mel ne chauffeur ak ñeneen góor a jëy ñoom fekke nañ ko yaakaar naa ne suñu digganteeg sëñ Alaaji Baara moom ñëpp xam nañ ko te daf ma naan wax del wut rek waaw del wut rek boo wutee rek di nga am dëral rek waaw bu ne kii mu ni dëral rek alors loolu lu ñu dund ak moom la kon yaakaar naa ni ci côté bu mu manti doon li ñu jàpp mooy lépp loo xam ne gis nañ ne mën na doon njariñu doomu aadama yi duñu ko duñu ko tëjal suñu bopp waaye nag su fekkee dañoo ñëw màggal am loo xam ne moom la ci sëñ bi sàkku ci ñun dañuy jéem a concentré wu ci loolu ngir bañ lu xajamal li nu yëkkati. sànq li nga def euh, maire de la ville de Thiès fecc lañ ko mën a tuddee du kat sant. nan lañ mëna a tuddee loolu nga def en tant que maire d'une ville comme Thiès. manam buma ma président de la république ci boppam Serigne Touba jaral na ma fecc jaral na ma dukkat jaral na ma yagaay sans benn forme de complexe lenen jaralu ma ko nak do ma sa gis ku ak yow bani la masna dajé ak man ci dancing amul masul am amul do dox ba dajé ak nit ku la masna dajé ak man ci sama ndaw ci dancing amul. waaye Serigne Touba bu ñu koy wax jaral na ma fecc jaral na ma dukkat jaral na ma yeggaayu. merci beaucoup monsieur le maire de Thiès. jërëjëf Serigne Touba. salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahin ma al xassa wa safar